Bassirou Diomaye Diakhar Faye du wax deug Ousmane Sonko du wax deug fen ak manipuler rek lañ def ba egsi au pouvoir te loolu continuer pour conserver le pouvoir. mais. Euh, euh, lu mu ngi ni nag caisse de l'État dara newu ci Diomaye day fen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 ni kàddu yu si le plateau de Senweb avec l'émission Ultimatum Sénégal yu bëri dañoo choqué wu pour preuve mën nañ indignation yi si biir réseaux sociaux Nous ñu bëri nag dañ doon xaar ñu ko bien avant muy génnee kàddu guiné génne plusieurs fois des attaques wu si kii Ousmane Sonko dem na sax ba Ousmane Sonko dañ coup war a rey. te damay wax ne Ousmane Sonko tant que mu ngi dund Sénégal Sénégal du am jàmm Ousmane Sonko ku ñu war a la parce que mom, ray mon nekk ci ci xel mi jamaate euh, fitnaal nit ñi waaw kon kooku duñ ko rey benn yoon mu jeex. yemul rek si Ousmane Sonko dem na tamit bay wax si Fulbert Sambo à Didier Badji ba loolu moo waral la famille des disparus ñu porté ko plainte devant un procureur. mbir mi nag mu ngi nii Suzanne Camara nag mel na ni c'est un habitué des faits parce que avant xamoon na ne autorité bi da ko doon protéger yorongurgi, wai menene lolu girne legi. Nun len latnak sen halat à travers les commentaires. ana lan ngeen xalaat si arrestation kii di Ahmed Suzanne Camara yoon la am déet ñu ngi leen di laaj seen xalaat nag bu leen fàttee abonné wu ngeen partager vidéo bi mun yeen tamit dem seetaan une yeneen vidéo à travers ce suñuy plateforme sur ce ñu ngi waxante ba beneen sur 2K Dakar